maa ngi tudd Arona non lakk-lakk yàggu yéen ay journaliste yéen mm-hmm. fii yàgg ñëw fii interrogé ñu ci ay lakk mm-hmm. dafa am détail yoo xamante ne du jar ñu ndax yéen du tey ngeen ñëw fii ci ay lakk-lakk mm-hmm. dafa am loo xamante ne ñun du duñu joué à la ndax ñun ci dëkk bi lañ dëkk judoo fi yaroo fi jàng jàng xam li ñu war a xam doog a nekk ay ouvrier kon question bi ngeen may posé nii da di revenir rek ci li fi amoon rek du question bu bees du lu bees bu fekkoon lu fiy doog a xew la ngeen mën ma cee laaj ma tontu ci mais lépp li ngeen may laaj xam ngeen kon loolu aw ma ci lu may ton waaw ñaata atelier ñoo oh, kii lakk bi la concerné moo lakk fii. fii li fi lakk ci atelier ëpp na 40 ëpp na 40 boo paree nga jaare nii xool de op na 40 du atelier bu ci ne lu muy yees yees lakk leen a 14 oto wala 15 oto.

donc maanaam lakk-lakk yi amul benn changement ndax gis nga nit yi lay métti amoo amoo leen yenn matuwaay yi ngeen ngeen jël pour que mu bañ a amaat fi ak insécurité bi yooyu yëpp ndax dox ngeen ci pour yi jàppale leen ci côté loolu def nañ ci ay jéego sur le loolu def nañ ci ay jéego dox nañ ci ba barki demb rek lañ mujjee ci commandant bi ak dix plainte kon loolu dox nañ ci waaye dafa am loo xamante ne gis nga góom boo koy faj doo ñëw góom bi nekk fii nga ñëw di faj Sénégal xam nga ban problème lañ am ñëpp dañuy daw responsabilité te gis nga réew dañ koy defar ci responsabilité dañ koy yor ci responsabilité même bu fekkente ne dafa dal njaboot bi nga xamante ne yaa ko jur da nga cee war a doxal responsabilité bu mot sëkk loolu mooy matuwaay koy jiite to wax nga ko doolu du yar moroom yi même ñun buñ xamoon ne lii mooy def lii boo jógee xel yi am na ci xele yoo xamante ne ay nit kar lañ leen fi nangu seen portable ñu dem fekk fa xale ya dóor leen bañ demee gendarme dañ leen ne di ngeen faj ñi leen ñi sàccoon portable léegi yow nan ngay defe ne boo boo wooyee xele ñu dem engagé bi ay nit rey ci ñaari nit wala rey ci nit yi yow famille bi nekk sa ginnaaw jaboot gi nekk sa ginnaaw apprenti yi nekk sa ginnaaw yow nga dem tëddi cent mètres pour pour lan amul sens li fi Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko nañ joyanti réew mi ci yar ak ité ak xam-xam lii ñuy def nii te journaliste yi aussi dafa am foo xam ne dinaa leen wax gi senegal du ñu waxtaane lu am solo yéen a ngi topp Ousmane Sonko guddeeg bëccëg Macky Sall guddeeg bëccëg te ñoom ñun ñii amal réew mi njariñ kenn du ñëw fii ba ñu am ay problème ba tey jii ni kuñ ci woo doo ñëw def nañ fi ay shooting dañuy woote ba son kenn du ñëw to ñun jeunesse bii nii fépp fuñ leen woo balaa ñoo coupé téléphone da ngeen a war a ñëw ndax ñun ñooy avenir u réew lu ñu dal dina dal seen kaw ndax di ngeen am oto di ko dépanner fi ku amul fii oto am nga mbokk mu fiy dépanner kon il est temps aussi ngeen ah changer ci lu bëree bëri muy jeunesse bi nga xamante ne bàyyi politiciens yi lu am solo la politiciens yi dañuy tardel rek ku ci ne day coow ba fol boppam bu felee boppam def la ko neex waaye ñun ñii koo fi monti fol boo xëyul suba doo am dépense ak ku mën a doon nag ku la dig ne la bu toogee réew mi dina changer boo liggéeyul am xaalis barki alxuraan di lay

mais comme actuellement au cas lii am loolu mënagul am huissier mënagul constaté mënagoo xam boromam lan lay wax yooyu ay réaction loo xamante ni dès après demee lay commencé ci nit ñi ndax ku ci ne yemul ak sa morom am na ñoo xamante ne buñ fi amoon cent oto dinañ ko baale am na ñoo xam buñ fi amoon bën a mën nañ la koo fayam waaye dañuy lancer état bi itam atelier yi fi lakk na xool nu mu leen dédommagé dimbali leen ndax ouvrier bu demee ba keesaayu teem lakk plan bi yàqu chaîne am yàqu li doon liggéey lép yàqu il est à bras nu su xaalis bi fi ne ñun ñëpp na état bi gëstu ku fi a problème ci loo xamante ne lakk na fi fexe ko subventionné ci li mu gën a gaaw jërëjëf jërëjëf